ahlan bikum Bamba Faal sama rakk la bu leen ko saaga bu leen ko xas bu leen dal ci kawam du samay kàddu Xalifa Sàll moo ko wax jëmale ko ci ay farandooram ak jege ñaaleem source a yi ne kay yeggee ñu ko ku ko jege la yónni na ko demal waxal ma mboolem ñu ànd ak man ne bu ñu wax lu ñaaw Bamba Faal sama rakk lay mës di doon même sax su bës ñëwee mu bàyyi ma terewul nañ ko bàyyi bu mu tax ñu wax ko wal fajër yéen a kaay na ko sa atte bi yow Khalifa Sall ñaar fukki fan la ak benn procès bi le 30 mars ci lay ëtt attekaay bi di joxe dogalu atte ba ba tax tey yéen a kaay bi fa def bilan mbooleem lu xew ci atte Khalifa Sall ba Khalifa Sall moom nag buñ ko tëjee kaso gàcce lay doon ci réewum Sénégal Cheikh Bamba Dièye moo ko xamle ci Sud Quotidien ñu ne déetawaay Cheikh fekki Macky moom leen leen jox ngir neexalee leen ko xamuñ benn njëriñ li askan wi mi ngi ci les écoles yéen a kaay Abdou Khadir Touré ne Idrissa Seck moom nit ku paase la waxatuñ ay waxam mi ngi ci réew mi yéen a kaay Farba Ngom na ko may ma ngir yàlla ma wax Idrissa Seck boppam idi du dara askan wi fu koo jéppi du def lu baax du bàyyi ku def lu baax def ko ba tax laas yéen a kaay ne Farba Ngom kay yekk na kàddu yoo ne weñ wu ci dal dee jëmale ne na fa am ay chantier yu ñu a yóbbu Casamance armée bi d'accord idi jël alal jox xaalis bu yëpp tasaare ko ci ay kontam te mandaam bu njëkk ba biñ ko falee lam taxal Cees ñaari yoon la loolu dafa ñaaw Alioune Badara Cissé na ko leneen lu ñaaw ñi ngay jàppale tey Macky ak gaay ñoo ko fiy def ci réew mi te man na kenn mënu maa wax dëgg ci les écoles yi nekk kaay Alioune Badara Cissé nee na Macky ak gaay mi nañu réew mi bëri na lu ci baaxut wote la yéen a kaay gosaas la yëkkatee kàddu yi kay tontu na waa amnistie yi ñaawlu doxalinu Macky ak nam yore réew bi nee na ay politiciens yu làqatu ngeen di mbubboo société civile te sax yéen ngeen fee nekk di def ambar ay góor jigéen ak lesbienne le quotidien but number منطق